mbokk yi ak xarit yi dañuy ñëw ci ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax Amina Poté ak ki nga xam ni moom la ñuy wax Kouthia mu mel ni war nañu am procès le 26 ci wàllu diffamation loolu nag man dafay nekk loo xam ni daf ma jaaxal parce que ay ojo yoo xamante ni dañu xëy rek ne ko bëcc ci pénc bi yoo xamante ni bii. envoyé wuñu la ko ki koy wax waxu ko cib rajo toogut cib tele wax waaye lum doon wax en privé la di ko wax ak nit nit kooku doon nit koo xam ni nit ku ni ma ko mën a waxee mooy nit ku yées mën a yëkkati loolu di ko teg pour man li Kouthia def nit ku ne tey def nga lu ni mel ku wéet xam sa bopp nit toog na wax ci nit loo xamante ni bii bëggul nit ki dégg ko ilaa yow mi diini waaye ki fexe nit kooku dégg ko wala ki fexe nit ñi dégg ko kooku moo nekk ki nga xam ni moo fautif plainte parce que man dama jàpp ni Kouthia victime la ci koo xam ni wóolu na ko peut-être que ni yow Amina mën na nekk ni am na foo yëkkatee ay kàddu yoo xamante ni bii jëmale ko ci Kouthia tey bëggoo Kouthia jot ci te lu mel noonu bu fekkoon te ni nit génne na ko mën na nekk loo xam ni mën na doon sa xas waaye man jàpp naa ne bu boobaay nekkul ni sax yow lañ war a xas waaye ka génne mbir mi moom lañ war a xas xam lii problème parce que Kouthia li nga xamante ni bii moom la wax. ak lu mën a doon waxu ko foo xam ni fu nit ñi war a dégg la mu ngi wax ak nit nit ka muy waxal lay wax li muy wax loolu ñu ñëpp def nañ ko daanaka ñu bari def nañ ko ñu bari ñuy def lu ni mel mais tey bu fekkente ni danga ne daf ma diffamé jàpp naa ni foofu mën ngeen a bañ a yegg ci dem ci yoon parce que ne serait-ce bu dul dara am na loo xam ni jaar nga fa ak nit ki que ni tey mu naqari ak lu mën a xew tey peut-être bés jotoon na nit ki tàllal la loxo ngir fi nga yegg si tey nga xam ni am na lum ci participer parce que yoon wi bokk na ci ñi nga xam ni ñoo la ko xàllal kon yaakaar naa ni parensaay nit mën na la def lu rëy wala nga dégg mu wax lu rëy lu ñëpp di joobe mais li gën nga am esprit de grandeur xam ni kii di wax de wax dëgg fa yàlla jàkkaarloo wut ak man wax ma ko kii di wax de vraiment taxawut cib tele wax ko toogul ci li nga xamante ni mooy ab rajo wax ko defaluma live wax ko waaye lu mu doon wax ak nit la nga mën a jéggale te xam ni yéen ñaar ñëpp ay victime ngeen ci mbir mi que ni wax kii dal na ci sa kaw victime nga. que ni moom mi nga xamante ni bi tamit lam doon wax en privé la ko wax victime la kon yaakaar naa ni soxlawul mbir yi di yegg feneen ak feneen du yow kese yaa dégg sa tur ci mbir mi et pourtant les autres def nañ profil ba daa bàyyi mbir yi mu romb ngalawaay ni nga xamante ni bi noonu la ko say nawle defee doxalee ko noonu parce que defe naa ni loolu mooy li nga xam ni mooy li gën tey xaar nag ëllëg bu fekkonte ni dafa jàkkaarloog yow wax la wala mu toog ci émission wax ko bu boobaa jàpp naa ni boo ko defoon ci lay ëpp sens waaye nag fi mu toll nii wax dëgg fa yàlla ki ngay yóbbu victim la ni yow.